barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mu jël faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.
xam nga képp koo si képp koo si ñu naan bàyyi na ba du dem am nañ xasida waxee ne boo ko jàngee bàyyi nga naan yonent bi xadimuka maxdumul muluki wala faxra maa ngi lay julli ci yow di jotlu ko ci yow di sa bëkk néeg waaye sa bëkk néeg bii de ay buur dinañ ko liggéeyal te loolu sax du ko tiitaroo su boobaa te dañoo bëgg lu baax rek ñëw ci moom amir kanu nag sultaanu kanu misaal la ca mu ne mu fàttali ne mi ngi ànd ak ku toll ni Baye Laaj Mbaab du ñàng ak ki nga xam ne doomu baayam la ci bëgg yàlla muy El Hadj Lamine Soxla doomu Aboubacar ñaana leen yàlla mu fay leen yiw fay buur kanu waxoon naa leen laaya jëm ca teg nag day junju loolu shuhudu minit ba subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin yàlla mi tàggat lii moom rek ko mën mu ne wax xaraj naa achiyata yowmi alxamisi alxamisa achara noonu la ñuy jàngee baat bi ci arab min alchahri ila tanim lil ixrami bi umrati tanim barab la boo xam ne soo fa yeggee génn nga xurum ji mën nga fa armale duggaat xurum ji ñëw def umra moo fa gën a jege xam nga kañ la xew mooy sayyidatuna Aïcha ci xajjatul wadaa bi yonent bi ñëwee ba mu demee ba aj aj ba ci kanam dafa gis baax baaxu doomu adama la mënta tawaaf ba nit ñi bugg a ñibbi mu ne yonent bi ñëpp a ngi ñibbi ak xaj ak umra man mën naa yow ñibbi ak aj rek ndax yonent aj la jiitu loon yonent yebal ko ne ko loolu yàlla ko bindal doomu aadama yi aada la ba mu ko dalee la ko ko wax mu ne ko loolu aada la defal ni ngay def te nangam nangam nangam lu mooy wër kaaba gi rek ba mu ko waxee loolu nag ñu ngi waaj a ñibbi mu boole koog Muhammad ibnu Abi Bakr Siddiq càmmiñam ne ko yóbbu ko ba Tanim mu armal ngeen ñëw tawaaf saa yu ñu ànd ñibbi moom te mu am aja umra ni ñëpp Tanim nekkutoon miiqaal ihraam ci ajig bàyyi googa nag mu ne bañ nekkee Minan xam nga am nañ lu mu benn ñaar ñetti occasion dajeeg buur bi mu ne daje boobu ko yàlla mayoon ak ràññeeku moom bàyyi te mu wax ñu ci dara ne maanaam biñ demee buur bi recevoir leen bëriwuñ foloment yi bëriwuñ boobu dañ daan wër sax ci dalukaay yi di seet kuñ teg aal yi bàyyi noonu lañ ko xàmmee indi ko mu ne bi ñuy waxtaan ki jógee woon Misra jamono jooja moo doon xatiib ca mixraabu zeynab yi fañ suul saydatuna zeynab ca qaahira mu ne gis nga niñ fasaaye mu wax a wax a wax a wax a wax keneen daal di koy feelu ñu tëgg buur bi nag ndax Abdul Aziz booba dafa am nguur booba la ubbi xijaaz ak yëpp nekk kémtaan bees bàyyi ñoom faysal ak kenn ki ne ko noonu la xoolal buur kay moom kéemtaan la xoolal maam jógee ci tëgg at na kii jógee ci Afrique nangam nangam nangam ñuy wax bàyyi nag mu ne bi ñu ma joxee parole man ma ne waaw ñi wax ñëpp de tagg nañ buur bi waaye man day ki may njëkk a tagg mooy Allah mi nga xam ne mi nga xam ne mu ne xam nga nag seen faiblesse ci tawhid la bàyyi di melal yàlla rek mu ne ku ma cay teg mooy yonent bi nga xam ne même kaa bu ngeen di wax fooraayam bi muy laata ñëw yàlla ebal ko néegu ay xërëm la woon rek ak ay tooñkat moo ko laal lu ma ku ma cay teg mooy saabaam yi nga xam ne ñoo def nii ñoo mel nii ñoo mel nii door cee teg buur bi nag fet mulir mu ne ki waxoon jógee misra ne buur bi man de foog ma ñaan la waxaat foog ma wax ci yonent ndax aalimu Sénégal dana ma tax wax ci yonent bàyyi na wax xam nga nag lu ne lañ mokkal muy wax nag ci yonent bii daal la la waaye daal fekk na yëf yi jiitu na rek bon booba nag jotaay booba booba Abdul Aziz ne xam nga tanim du miiqa xam nga du miiqa buur la du miiqa ndax Aïchatu moo tawatoon lii lii yonentu boole ko Mouhamad càmmiñam mu dem ba kii ne ko bu ngeen demee tanim mu mu fa ñëw maanaam te xam nga Aïcha makaana bi mu am nee na ci jotaay bi Ali Kutub bi bàyyi tuddoon ne taalibeem la boobu mooy mufti Shafii yi ci Saoudia mu ne ko ah yaa tawel omri da ngay fatwa ci diine ci loolu xam-xam xam nga boobu taxawaay loolu nag àddina bi ci biiram xanaa xamoo ne keroog la Tanim nekk miiqa ba tey miiqa yi ci des ku ñu ko xamal ku may kooku eble fa mu ne buur bi jóg jaas ji mu amee mu ne bëri jóg ñi dañoo tiit sax ñëw daal di ko koy gàllal ne ko gis nga man jànguma taluma ko woon sama bàyyi daf ne ko jànguma waaye li ma la wax maa ngi ko déggee ci gaa ñii joxoñ ay ulama yu fa nekk màggal ko waaw seetal ma taalube baay ak baay ñoo am ndam ci jotaay booba te mel ni kenn xamut li xew parce que téere bi du jàng nii rek dafa am yu nekk ci biir boo koy jàng ba suba doo ko xam alors nag ndeysaan tanim mu ne ñu dem tanim boobu ngir ixraamee fa ngir umra wa wasalna qubayla gurubi shamsi ba ñuy egg tanim nag am na njàkk su fa nekkoon booba booba jant baa ngi waaja sa qubayla moo gën a tuuti qabla wa jalasna fi masjid sayyidatina Aïcha jàkk ja jàkk yi sayyidatina Aïcha la woon ndax moom lañ fa ebaloon avant loolu dara amu fa lintidaar al maghribi di xaar jant di saar di xaar waxtu timis jot wala maa wajabat ba farata ja waree wajabatul maghrib maanaam wajabat faridatul maghrib li ci jublu daxal naa wa sallayna faridata fi daaxilil xaram ñu dugg julee ci jàkk ja fekk ñu ngi ci biir xaram ba maanaam ñu ngi ci biir li ñuy wax xurum nekkuñ ci xillu wa xaraj naa lil xilli gannaaw ga nag biñ julee ñu génn dem ca faduul xurum wa sallayna rakaatay sunnatal ihram farata ñu ngi ko jullee ci biir xurum génn ci xellu bi julli ñaari rakka xarmal daf lay woon ajam nga nam correcté wa ahramna wa labbayna wa ji'na wa tufna bil bayti daal di xarmal xarmal mooy yéene aj bokkut ak malaan mi nga làmboo de loolu mooy yërey xarmal mais xarmal moom yéene la yéene ñu daal di def labbayka teg ko ca ñëw ci makka wa tufna bil bayti wa saayna bayna safa wal marwa loolu mooy umra kat xarmal tawaaf juróom-ñaari yoon daw safa ak marwa umra jeex na daaina qaa'ilina maa kaana yaqulu sallallahu alayhi wa sallam ña ngay ñaan yàlla ba ñuy dem ak a ñëw ña ngay wax itam la yónnante daan wax maanaam ñi ngi roy wa xalaq naa inda alxalaqina fi ne mi ngi gaawal li aslitu daan wax suy firi bu jant bi waaji soo ba mu gaawal ñu ne ma ngay rëppital fi ne nii bàyyi dafay rëppital ci mbind mi mun ñëw nañ def nañ def nañ def nañ sans détail parce que détail yi xam nañ ko ñu wax la yonent daan wax wa xalaq naa inda alxalaqina fale mu ne alxajjaamina benn luxu la alladina inda almarwa xam da ngay dem safa yéene xam nga kon yaa ngi safa aw yoon dox ba marwa nga ne benn dépare marwa ñëwaat safa muy ñaari choc xam nga laal nga marwa benn yoon mais yaa ngi laal kii ñaari yoon boo delloo muy ñett boo ñëwee muy ñeent boo delloo muy juróom boo ñëwee muy juróom benn boo delloo juróom ñaareel bi marwa la lay fekk moo tax foofa ngay watoo wala nga duufu boo bu fekkee nag kii wuloo yàlla bëgg na la sonal ba ba kii da ngay def na ma defoon ci sama aj gi man kenn jiitiwu ma ma dem safa marwa safa ne benn dem man safa marwa dellu safa ne benn dem marwa ñëwaat ne ñaar juróom ñaari sawtu yi fukk ak ñeent laa ko daw boo tax dama xaw naa tus kër boo tax théorie ak pratique bokkul ورجعنا فرحين حيث تمت المناسك جميعا ñu dellu nag ca dal ba kontaan lool ndax manasik yëpp pare na def nañ aj def nañ umra bi fadlillahi wa minnati yàlla ñu ko may ci ngëneelam ak xéewal gi mu ñu xéewal walhamdulillahi alladi arana manasikana ndax yonent Yàlla Ibrahima ci ñaanam ya bokkoon na ci wa arina manasikana won ñu nusk yi ñu war a def yëpp xam nañ ko def nañ ko nëkku yonent defee woon walhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allahu ñaan googa nit ñi naawi ñaan buñ demee ba taxee nag ci alaxira mu ne ma wax ko sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jubal ñu mën a def lii bu ñu ko wanutoon duñ ko mën a def wa in tauddu nicmatallahi la tuhsuha beneen aaya alquran la xéewali yàlla yi boo ko doon lim mënoo ko jeexal mukk wa qad gafirtu léegi waxi aj jeex na waxi umra jeex na mais bàyyi ak xam-xam itam beneen affaire la mu ne bis boobu nag mu pare aj ak mu pare umra téere yam fa am maa yam fa jënd moom loolu sax fàttiwuloo koo wax bisu ajjuma la 16 ca weeru ajjuma mu ne am naa fa kutub bi iddati kutubin kulluha min makka téere yi mu jëndee makka sax dafa la koy wax téere yooyu fekk nañ ko ci kàggu gi ba léegi bu ñu fa demee mun naa la caawoon mooy kaamil boo xam ne dafa doon fukki xaaj ak ñaar boobu tumburanke la mais léegi bëri na yow sax da nga jënd si kaamil ñu tasal la ko kaamil boo xam ne fukki xaaj ak ñaar mu ne maa ko fa jënd ak Fathul Baari bi Shara Buxaari ak muqaddimatu Ibnu Hajar bu jafe la woon booba jënd na Kirmaani Shara Buxaari la moom itam jënd na fa Tanwiirul Xawaalik biñ Shara Motaw Malik bés booba. yéen am na fa diwaanu Omar kii Amru la bind mais Omar Ibnu Abi Rabia su ma juumul ab aristocrate Qurayshi la boo xam ne ba mu jotul ca nguur gaag yooyu. dafa nekk rek ci woy woy na lu ne nag woy nu melal na ay jigéen wax na yu jaaduwul woy na yu rafet itam dégg nga voilà mais kuy jàng wax yaaram da ngay jàng woy yëpp am na fa tey mu ne kamalul balaaxa rasailu naadira yooyu fekk nañ ko ci kàggu gi usulul maamul ci usul la ak benn xaaj rek ci tafsirul Faxri Raazi ndax boobu boobu rek lañ ci mbooloon tey sama kàggu ko sax ma ngi cee waxantuma kàggum nga ak jasuus ba mu bind ci chamail sara chamail muhammad yi jasuus maghribi la téere yu jafe la woon booba xawaidu abil faraj istaadul fuxuul ci usul la yaakaar naa ne shawkaan yi moo ko def gaayatu nihaaya ci tabaqaatul qurra ñi fànnoo jàngal quran bidaaya wa nihaaya mu ne ci taarix waaye yàlla may la ma njaam su xeebu si ndeke liñ naan bidaaya wa nihaaya yépp ak xaaj yi ndeke bidaaya rek la nihaaya benn xaaj la mooluñ ko woon ndeke ak mi ñu ko moolee dañ caa def shouting fekk ma nekk charq ma jënd ci jëndal ci baay ñu ne ko baay bi daawe nihaaya nihaaya ngi door a génn ñaari xaaj la def naa ci ci ci ci mbiram mujj àddina ak axalu kii ci lu nekk ak xadis mahdi yëpp ca la nekk lu sax ma ñëw ko xam nga bàyyi nag lu bees booba je crois que ma ngi ko doon liir loo Lamine ak ak Xasan ba mu ñëwee ba mu ko laata denc lii la ci nekkee bidaay wu nihaaya bidaay rek la woon xaaj yu bëri yi nihaaya ñaari xaaj la yàlla may na ma maa ko jëndal bàyyi bàyyi bi ma jox lépp loolu maa ko ko jox wal istixraaj fi ahkaamil xaraaj boobu kii la majmuatu rasail xams lu am solo la nag ndaxte musul nekk buñ mool luñ bind ak loxo la woon bi may raddu waa Koweït ba am na ci masal yoo xam ne ci rasail yooyu laa ko jëlee woon mu saf sàpp nag tayidul xawli bi najaati booy rasul pourtant du problème waaye am na ñu ko def problème bañ taalif yi ne yónnent yaayam ak baayam dañuy mucc ay wallaay dañuy mucc waaw mais gars yi laaj nañ ko boon ko salaasatu ajzaat ci xilyatu abi nuaymin xilyatul awliyaa yi bu abu nuaymin xaaj yu bëri la waaye booba ñetti xaaj rek ci génn léegi ba mu génne mun na fukki xaaj naar yi gisoon naa ko kuy wax maanaam diw su ko abu nuaym fekkoon cemoon dana ko boole ci rijaalu xilyateem yi maanaam wëli yu rek la bëgg wax te bañ a jaar ci digg ba ndax ay awliyaaw ci yonantu la ci dee ba ci jamonoom riyaadul janna am naa ko fa jawaahirul alfaas as téere la ci luxal arabiya dafa foor ba dégg naa buur bi tolloo nag waa ji ko taalif daf ko ko taalifal ba pare muy oo ko dagg loxo yo ne ko balan ko taalifal keneen ictisaam bu Shaatibi ci mbiram sunna ak bidaa lay wax référence la ci xawaayidul ahkaam bu ibn abdusalaam iz téere yëpp mu ne am na ko fa keroog ci màkka ak diwaanu ashaari sahaaba sahaaba yi liñ leen dajaleel ci seen woy yi ñu xam keroog am na ko mu ne la des ci téere yi Medina la ko jëndee xool wa fi yawmi sabti xarajna li ziyaarati al maathiri wal athar samedi ja nag ñu ànd ak ñi xam di siyaare barab yi nga xam ne yu ñuy siyaare fii lii mi fi xewoon lii fi xewoon lii fi xewoon maasir mooy maasuur li nettali ne fii la woon asaar mooy jiixiti fa des ñu ne lii la woon awaluha wa awlaaha ba ca jëkk ci luñ siyaare ci jiixit yi te gën a yàlla siyaare mooy daarul arqam allati badaa fiha al islaamu xariba fi nga xam ne fa lañ daan làqu ji yonent di wax ak julli ñu bees yi buñ buggee julli rocceeku ku seen ku la seenut nga julli gaaw ñëwaat arqam ibnu abil arqam mu ne moom laa njëkk a ziare bés bi sëñ naa Omar Toubé lañ génn nëbbu julli yonent xam ne ndigal ñëw moom laay wax dox bu gaaw bi Omar dox léegi nga jóg pour rey yonent bi léegi nga jub ci yoon yi léegi nga tuub ba ngi daal am ay kii rek nga joxe benn benn xalaat yonent ànd ci ak julli ñëpp mu soppi taarix muy sayru bu gaaw wa minha daarul arqam mu ne fa la lislaam tàmbali woon tumuranke waaye alxaysuraana lañ koy tuddee foofu léegi alxaysuraana wa minha ila jabal xubay jabal abi xubays dem nañ fa parce que foofu itam taarix la yàgg ngeen ko dégg ci gàmm wa minu ila mashaqil qamar fa yonent taxawoon ñaan weer weer wi xotteeku dal fa ci mujisa ndax weer wi xajul ci suuf si mais yàlla ko defee noonu waaw wa minu ila mawlidi sayidina ali ibn abi talib sayidina ali fa mu judd woon xam nañ ko dem naa seeti ko karam la wajo wa miru ila mawlidi sayyidil mursalin ñu jógee fa nag seeti fa yonent juddoo woon moom muy sangu jullit ñëpp ñi yónni ñëpp wa miru ila mawlidi sayyidatina fatima foofu itam ñu dox tuuti egg ca fa fatima tu juddoo waaw léegi foofu dañ ko soppi woon tudde ko maktab ab bibliothèque nit ñi di fa ñëw rek mu jigi ñu tëj foofu waaye nag ba débat bu mag la fi mu ne am na téere boo xam ne ki ko bind ni mu bëree xaalis la bëree xam-xam ci màkk tey Omar ibn Abdoulaye Kaani waaw lañ doon wax yëpp ci journaux yi boobu ne dañu war a dekkal asaar yi articles yi génnoon yëpp ak yañ tere woon yëpp dajale na ko def ko ab téere waaw te itam ni ñu koy jaayee sax xam naa dañ bañ ñu sabote ko moo tax ku ko bëgg jënd ci Europe contacté nii la ñu wax waaw par prudence mu ne dem nañu tam maxalu ummina Khadija fa seen sayyidatuna Khadija moomoon umiru ilal mualla mualla mooy bàmmeelu waa Makka mualla lañ ko tuddee mualla mooy luñ ko wayal mualla d'ailleurs su faatu suma doom jabaru Lamin ba mu faatoo foofa lañ ko suul soriwul sax Khadija wa zurna qubura sahabati mu ne ñu nemmeeku itam bàmmeeli saaba yi wa arafna minha saaba yi fa suul bëri nañ mu ne xàmme nañ ca xabru Abdullahi ibni Zubair ak bàmmeelu Asma bintu Abi Bakr Siddiq ka nekkoon ca préparation gàddaay ga bañ buggee takk ñaari mbuus ya moo moo xotti ca muraayam ga takk fii takk fii moo tax ñu wax zaatu nitaaqay ni gis nañ fa bàmmeelu Abdurahman mbokkam ak bàmmeelu Khadija ci boppam ak Amina ak Ahlul Bayt yi fusul yu bëri wa min hunaka zurna saydil gaali aba talib wa ruxna li salaati zuhri gaali abu talib waa Maroc la bu fa nekkoon ñu dem ànd ak moom julli ji tisbaar wa baada inqidaai salaati istadaana al muridu sadiq saydi ali al kutubi borom ictiraab bi ma leen wax léegi ki ne woon buur bi da ngay wax ci lu dul xam-xam mu ne bañ fa jógee suma taalu bi bu dëggu bi ali kutubi invité ñu sharif bu wér askan la wajtamaa hunalika ayaanu tijaaniyina min al xujjaaji min sudaani misra takarir wal arab invitation ba nag prétexte la woon parce que kilifa tijaan yi nga xam ne acc ci nañ ak ñu jógee misra soudan misra ñu jógee ci mauritanie ñi nekkoon ay mauritanie daal même buñ fa dëkkee ak ay tukkuróor ak i arab daje nañ fa yëpp di ay tijaan suma taalibe bi invité leen invité ma ngir invité leen ngir man wa akramana wa anshadana baadu al ahbaabi shay'an min shi'ri al muhibbina mu teral ñu am na sax ñenn ci soppe yi maanaam ahbaab foofu mooy ñu dudd wahaab yi jullit buy jéem a ut dëgg la rek waaye en tout cas ñun bon voilà amuñ problème mu ne am na lenn ci mbokk yi muhibbine yi sadd na fa ay woy samaaw cherul muhibbine foofu mooy samaaw dégg jàpp leen ko wa tadakkarna ahla koosi wa madina mu ne ba waaj a jooroo samaaw ba mu ne ñu fàttaliku waa Medina ak waa koosi wallahi loolu ba dal bàyyi dal na ma wallahi lazim benn jëmmi jam am na bàyyi aj si wut atam ma xamanteeg ay nit waaj ne ma dafa am daje buy am ca montagne ba ci kër Cheikh Fadar te ñu dem ca ñu ay étudiants yu waaj a génn ak ay ñu dem ndekete foofa géewab tagg yonentu samaaw ku neexee baat ni Cheikh Zeyn mosuma ko gis mu sadd fa tuftu fi lxayi laabisan sawba ilmin fantafal ilmu inda xalci ni ali baat baa nga neex ña ma foog ne ni bàyyi wax ña nga nekk Medina waaw waajaa ngay liit naan wër naa ci gàdd gi fekk maa ngi soloon bu boobu xam-xam ba ma demee bañ sumbi dàll ya xam-xam ba réer ma ne ko may ma mu ne ma ne ko ma ne ko laa artaji amalan kalla wala adaban faqad tajarratu tajarratu an ilmi wa an adabi mu ne ko wax loolu ma ne ko sama kooku Cheikh Bawi waaw xabaay dem na ba ne ba ne léegi yaakaaratuma yar yaakaaratuma xam-xam subbi naa xam-xam ak yar yëpp ci ci xur woo da tolloon boo waaj ka koy ko wax ma dëkk xadara mawta faatu na ah ñu jox ma parole ca fin ba góor ga am na juróom-ñetti fukki at ak nangam Chérif xaqat ci waa xadara mawta yëg ma lu may rek mu ne ma yaa Cheikh Ibrahima zakirna billah la hawla wala quwwata loolu kenn musu ko dégg Cheikh Ibrahima fàttali ñu yàlla ba may la jël parole lam gàtt gàtt mi ngi mel ni dox naa sama xaatir dox na junne ak man fan lañ jógee ak foofu ku ñu fay ne fat ma jël kon muy wax ma may wax ma bàyyi di wax man foofu ba góor gën a jareet yuuxu góor gu màgg te lañ amee nag ay relation waaw ñii doon jàng ca kutubi jarbaat usatu kutubi bii mu jigi suñ jotaay ci màkka moom itam moo fay jàng ay samaaw dara demut mu ne watadakar naañ fàttaliku nañ nag ba waaj a jooroo ahla koosi wa madina fa jazallahu aliyan alkutubi ahsana aljazaai wa ayadahu bi nasrihi yal na yàlla fay ali kutubi moomu te yal na ko dëgëral dimbale ko wa rafa an ahlihi kulla balaain mu junj dara mu ne te itam mbokkam yi yàlla teggi nattu yiñ leen rek xam nga ku mel noonu foofa booba xam nga ni foog am na ay jafe-jafe ay nag tabaarkalla photo yi ngay gis nii am na ci yooyu kaaba gi nekk ak immeuble yooyu ñuy wane am na ci boo xam ne mun naa la joxoñ ne fii kër kut bii la maanaam tabaarkalla yàlla teggi na yëpp wa jaddadtu lahumu tariqata ñooñu fa daje nag jógee Soudan Misra jógee Chanaxita jógee ci arab yi jógee ñooñu ñëpp ma beesal la leen seen tariqa xam nga xujaaj bi tuurankeetul la mu ne wa kabiruhum saydi mouhamad xafidu saydi mouhamad al muxtaar tijaani min baldati matamma fi soudan misra ña fa daje woon ñu nag ciy mag mag bàyyi mag xam nga du magi at ak yooyu mooy sëtu amad muxtaar tijaan bu mag boobu dëkk soudan wa qad jaddada alayya tariqata te moom moomu di seen mag nag moom itam ñëw na ma installal ko tariqa bi wa saatuhu bi baadi ma talaba minni min asraari tariqa te itam dimbale naa ko ci lenn lam sàkku ci man ci mbóoti tariqa bi maanaam sàkku nañ ci moom lu mu ko joxoon parce que itam médecin du jox garab bu sa xel daj rek nga ne ko garab saa nga mën a jël déedéet lay jox yi baax ci yow wa huwa rajulun déglu bàyyi de laa ashukku fi wusuli bàyyi ne kooku sëtu Mouhamadou Moukhtar moomu tijaan boobu bees lu ci man ma ma bees lal ko déglu bu baax sikk waayal yoo xam ne sikku ma ne egg na ci yàlla kon kay xanaa fayda moo am fu mu dëkk waaye nit ñi egg egg loolu mën ta ñàkk wa kadalika taaraftu bi saydi mahmoud afandi ibn ali abajat ibn ali ibn jaat abajat la xam naa temps bi ñuy bind kii waa ji dañ ko miin gannaaw gi miin doomam nekkoon doomu abajat mi nekkoon na directeur banque centrale ci Soudan ci Khartoum weer wi passé ba Baba Lamine demee Khartoum téléphoné nañ ma passé ma ko moom ma wax ak moom waajur bàyyi mu wax yëpp poppati Mahmoud Aba Diar uduwu taifa al muhammadiya tijaaniya amoon na fa groupe bu tudd taifa al muhammadiya tijaaniya ci xartoom moom membre la ci boobu muy dajeeg Baye waxoon naa lay ne Aba Diar moomu la Baye jotoon pare ci ay diiwaanam te doon ko jàng ba bu sër ca rawda ba ba mu ko gisee ba mu jàpp ci moom nusxa yooyu mu amoon Baye moom la ko jox waa ji wan na ma ko ci benn at ci xartoom ah waaw wa hada sayidu min akabiri asxaabi cheikh kii may wax nii abajaat mi mu ne ci ñi gën a mag ci tijaan yi nekk Soudan la wa qad qaddamtuhu fi tariqati te jox naa ko lijaasa wa atxaftuhu bi julli asraariha te nag ba ma ko taqdimee am na fu mu jaar ak moom daf ko taqdim mu ne may naa ko itam li ëpp ci mbóot yi mbóoti tariqa bi alati indi yi nga xam ne man maa ko yore kama faaltu dalika ma saydi ali al mutaqaddim ali mi doon wax itam malikut bi noonu laa def ak moom de jiital naa ko ba pare jox ko lu bëri yu ëpp ci mbóot yi wa fi rujuuci wa fi rujuuci la wax de min indihim rujuuci ana jëm rujuuci xam nga wa fi rujuucin min indihim xam nga arab du ko bind kon bindkat bi bu rafet loxo bi te mën a jàng xam nga ñu ne léeg-léeg naaru góor faktalu wa fi rujuuci ba may ñibbi nag min indihim jógee ci ñooñu dégg bu baax ci invitation boobu raaytu inda al bayt inda rukni al yamani shaban min ashraafi ali fas mu ne ba may ñibbi nag ba ñëw egg ci kaaba bi ci ruknul yamani mooy bi nga xam ne boo ci déparé ñëw xajarul aswad romb buntu kaaba gi wër fu moom mii na ngi noonu wallahi alors mu ne foofa laa dajee benn xale lu góor bu nekk shérif bu bokk ci waa Fass yaa ngi dégg wax na barab bi wax na waa ji wax na waxtu wi wa qultu lahu ma gis xale boobu rek shérif boobu rek man wa qultu lahu ma ne ko ci tëccet man laqita min as-salihina fi hadi baldati muqaddasa yow bi nga ñëwee ci dëkk bu sell bi koo dajee ci saalihina yi xam nga laaj googu c'est pas innocent ñi mag ñi fi nekk yëpp kii rek lay laaj koo dajee ci saalihiin yi bi nga ñëwee ci dëkk bu sell bi xaala wax waa xale ba tontu ko maanaam nit kooka ne ko laqiitu waliyan min ahlil kashfi léegi nga xam tax mu da ko laaj mu ne ko man daje naa fi bi ma ñëwee ak benn waliyu bu yàlla may kashfu wa axbarani annahu lamma ata al bayta waqaa lahu xaalun kabirun gaaba an hissihi mu ne ma moom bi mu fi ñëwee moom bi mu egsi Makka ba ci egsi ci kaaba gi yàlla daf ko kii xaal bu bu foor jàpp ko ba mu fàdd walis yëgam wala qiyal xadir alayhi salaam ca fàdd googu mu dajeeg xadir mi ñuy wax xadira Muusaa ma wa baada dalika raa rasula gannaaw bu mu gis xadir mu yéeg faf gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam wal xulafaa al arbaa mu ànd ak ñeenti xulafaa yi ababacrin omara ousmane ali dégg loolu bu wax mu ne wa qaala lahu kan yonent wax wax borom xaybatu gi nettali chab bi bàyyi di laaj yéen a ngi dégg mu ne waxaalo nag mu ne ko yaxujju fi hada al aami al gawsu borom martaba bi ñuy wax xawsu dana aj ci at mii wa yuxfaru li jamii ahli lmawqifi wa li walidihim te barkeem dina tax ñu baal ko taxaw arafaat ren ak seeni waajur yi ajur sax waa ji ci mashhad bi ne yonent bi dullani alayhi li azurahu wa tulba minu duaa wooy wax ma fu mu koy gisee ndax ma ziyaare ko ñaan ko mu ñaanal ma mu ne ko sa talqa wa qaala lahu qaala lahu sa talqaahu inda rukni lyamani yonent wax ko ci machab ne ko da nga dajeeg moom ci rukni lyamani fii bàyyi taxaw di wax ak waaj naan ko koo daje du ngeen kabar mi ngi bi suba suba يخرج في هذا العام الغوص ويغفر لجميع أهل الموقف ولوالديهم قال له دلني عليه لأزوره وأطلب منه دعاء قال له ستلقاه عند الركن اليماني bàyyi ne qultu lahu ma wax kooku nag dajee kooku ma ne ko ataalamuhu ndax xam nga ko qaala laa mu ne ko déet xaw ma ko moom itam foo xaala moom ki bàyyi di laaj man laqiita yow nag koo dajee qultu laqiituka yow laa dajee ba léegi Cherif Naari Faas xamul ne mi ngi wax ak kiñ ko doon wax voilà wa dalika laylat al arbiaai li ashrin baqina min zilhijja ci guddik ñaar fukki fan ci weeru aj di guddik àllarba la loolu am ba mu jógee ci invitation gaa ñooñu ñëpp egg ci man ma taqdim ñenn ña ci ñëw ba tollu rukul yamaan yi laa fa gis ak nit ne ko koo fi dajeet mu ne an kañ daje naa fekk wala lii woo xam ne am na kës fu nee na ma lii lii lii am na ba mu laajee yonante kooku fu ma ko gis mu ne ko ci ruknul yamaan yi ruknul yamaan yi fi la bàyyi daje moom naan ko koo daje ci saalihiin yi xanaa lii leer na kay te bàyyi mi ko doon laaj koo daje mooy ki nekkoon foofu ki nekk suusu néegu néegu banqoo boobu ci biir boo ko soxlaa bu jarul ngay bu yàkkamti xaar ko njël bu génnee julli fajal nga ànd ak moom amul garde amul sécurité da nga tardé xaar ko tusubaar tardé nga tusubaar xaar ko takkusaan boo tardé julli xaar ma nga fa xëy na mu wasi mu mu mu wér na fa door a génn da nga tardé xaar ko tibis moom da nga fa yàgg ak moom ndax mooy wasi fa toog ñuy sadd way yonent yum ràbb moom ñu dem ca dogg di ñaanal ñépp fi mu pare mu julli gee ñëw reer reer bu guddi ndax dafay bàyyi xel ñu yéex a ñëw te buy lekk moom ñëpp ay bokk daan ma laa bara moom du lekk li may lekk man moom xeet na ko radiallahu anhu mu ne wa fi yowmi larbiaay jamaana mataana wa tufna tawaaf alwadaai raahilina ila judda bésu àllar ba boobu la bi topp ci guddi àll ba googu mën nañu dajale suñuy bagage nag wër kaaba gi wër ak tàggoo ci la dal di laxas nag jëm jëdda mu ne wa razaqani llahu beneen may ñëw na de an tuftu waxdi bil bayti bayna duhri wal asri wa hada yabaahu l aqlu bés boobu ñuy waaj waaj jógee màkka nag tawaf naa pare mu ne bés boobu nag yàlla may ma loo xam ne xel nangu ko wër naa kaaba gi juróom-ñaari yoon kenn fekkuma ci man kenn la dam na mag mu ma ne loolu wër juróom ñaari yoon kenn fekk ko mu ne loolu xel sax daf koy bañ wa rahalna baada salaati al asri ila judda gannaaw takkusaan ñëw dem jidda wa aqamna fiha bi xukmi lwaxidi alqahar ila yawmi sulasaay àllarba alxames ajuma samedi dimanche altine ba talaata ñu ngi judde mu ne atte bu yàlla mi nat moo ko atte am na lu taxoon am na lu yukaar wa fi tilka liqaamati yàgg googu mu yàgg jëdd nag ci laa doon wax lii boo boo kii nag boo ku mën a woy arab da daf lay neex mu ne bi juddata jismi wal fuaadu bi taybatin wa ahli wa ahbaabi bi qaryati kawlaxi على كولخ مني السلام فإنني أحيي رباها بالعبير المضمخ على فتية غر كرام أجلة سلام مشوق وسط تيماء فهم فتية باعوا النفوس لربنا فمن لي بمذكور وبذكر مسرخ فلم أر في شرق البلاد وغربها نظيرا لأحبابي عموما ولخخي آه. am na jëdd kon une semaine boo xam ne bëggoon naa dem mais yàllaa ko fa téye mu ne nag mu naan su ma yaram a ngi jëdda mais su ma xol a nga medinatu mun a war sama ñooñ ak samay soppi ña nga ci dëkk bi naan ko wax mu ne maa ngi nuyu Kaolack nuyoo boo xam ne dafa neexet mel ni maa ngi nuyoo di pompe gët mu ne maa ngi nuyu ay ndaw yoo xam ne ñu leer ñu tedd ñu màgg nu yób ku leen namm mel ni ku nekk ci digg àll digg àll xam nga mooy nit ñi xumb nañ mais ñoom ku leen di xalaat dal na ma dal na ma bàyyi dafa yónni màkka ba atam falaa fal ma gàmmu fekk ngir la ma doon dox la ma doon dox moo yéex a sotti alors léegi day bii moom koor da doon fa ooree beneen yoon la ma bind bàyyi leetar fekk maa ngi ci ay xaal dafay am ma bind bàyyi leetar ne ko maa ngi oor makka kilomètre yu bëri dox suñu diggante waaye bàyyi maa ngi oor na ma daan ooree ci sa pekk maa ngi jéem a roy na nga daan def di jàng xadis bu xare tey jii maa ngi ci xadis numéro nangam ma ne ko waaye nag maa ngi muñ muñ gu rafet ni ma la namm ndax li tax méttiwut fu ma gis rek ku mag wala ku jekk wala ku baax rek mel ni gis naa la ma ne ko waaye nag maa ngi sodd la waaj a waxoon benn woykat ka an lam yakun bayna alxajuuni ila safa anisu walam yasmar bi makkata saamiru mi ngi mel diggante safa ak marwa kenn musu fee ne ana rëj rëj ji maanaam gisuma kenn mi ngi mel kenn musu ngomlaan ci màkka bind ko nag benn bés bu yàgg la boo ñëwee bés may ma ne bàyyi ma ne mos na la fi bind lettre boo xam ne daanaka xam naa waxi ku kii la ma ne ah xanaa mooy bi noonu waa kan lam yakun bayna al xajooni ila safa samirun nekk daf ko daf ko archivé ci wax ji la bokk bàyyi nag ne mi ngi nuyu fittiyatun ay ndaw yoo xam ne baawoo jaay nañu annufuusa bakkan ya li rabbina jaay nañ ko yàlla taal ba yam fa bawoon fa man lii bi maskurin wa bi dikri musal eh waay waay xu way gisee koo xam ne ma ngay sikkar te moom la ñuy sikkar te ma ngay jol ci ko ma ngay tudd ña ngi koy tudd ñooñu la fa fa waxoon ne tajid fit fityatan sakra bi xubbi ilahihim fa kullu fatan yurfa la da zikri azwara ba muy ba muy décrit ba muy décrit médina di wax ne boo boo buggee xam mandargay fayda bi demal Medina da nga gis xale yoo xam ne ñu ngay sikkar bu kii ne nii rek kii ne kii la li koy baaru azwara mooy ni ñuy def nii jàng waaw bàyyi ne nag indi seede bi fa lam ara fi charqi lbiladi wa garbiha nadiran li ahbaabi penko xarfo yi ma dem gis ma fu ñu niru suma taalu bi umuman cig dëkkig matale wala xi gëstu ba xam gëstu li ma la wax yàlla yàlla saxal mu ne wax na fa itam ne xayaati bi sangalin wa taybatu jannati wa juddatu min duni ljinaani siraatu fa in massa abdan an yuqiima bi juddatin fa sabran fa haadaka almuqaamu ribaatu ñaari bayt yi jàng naa ko ci kanam ñoom kaamil sharif ak ay arab yu xóot ci jëdd bàyyi ngi toog waaj na waaj na ma ku koox li ma ne ko kii toog mu ne ma ajib ma ne ko bay ayu ajab mun di doy na waar ma ne ko lu ci doy waar maanaam dafa rafet lool bu ne sama dund bi moom maa ngi dund ci Sénégal waaye nag sama aljanna moom mooy madinatu munawwara aljanna nag foog nga jaar ci siraat mu ne jëdd nag mooy suñu siraat ñu ngi jëm aljanna ma toog gim toog jëdd jëdd neexul boobu amul goudron amul dara amul hôtel tout mu ne nag fa in massa abdan bu yàlla nattoo jaamam natt an yuqiima bi jëddati muy toog jëdda ni yàgg fi fa sabran na muñ muñal ak muñ fa haadaka al muqaamu sax googa ribaatu mi ngi mel ni ku fàndu ci toolu xare dañ ci am yoon boobu jëdd neexu léegi nag macha allah surtout gannaaw buum pétrole bi hôtel yaa ngay màgg rek mu ne waqad jiitu atlubu baaxiratan tatawajjahu ila bilaadi sham uridu ziyarat al qudsi sharif mu ne ci jëdd loo nag muy ut bato bu jëm Shaam ndax dafa bëggoon a dem baytul maqdis door a ñibbi xool itti ji wastaxartu llaha faxtaara li nuzula bi tanja bi maghrib al aqsa mu ne mu def istixaaram pour yàlla tànnal ko dem ou dem baytul maqdis xaar ba am bato wala continuer ñibbi mu ne yàlla tànnal ko ne duggal ci bato bi lay yóbbu tànja camar mu ne wa qataatu awraaq al baaxirati zarqa al musammaati bi xaal tuddoon na ko mu ne bat ba ko indi woon jëdda jëlee ko tànja mu ne mu dali cey dog biyeef waxya lati ballagat nii hadihi diyaara walhamdulillahi awalan wa axiran mu ne mooy batu bi ma indi woon fii kon nag moo ma indi woon mi mooy daloo maa ngi sant yàlla ca départ maa ngi koy sant itam ci fin bi wa rakib naa min jëdda c'est que mi ngi kii mi ngi rëppatal wa rakib naa min jëdda yowma sulasaai dahwatan li arbain baqina min dilhijja mu ne ñu ñu daal ci gaal gi ci yoor yooru bésu talaata ba fekk ñeenti fan rek a des ci weeru aj wi xaasidina tànjata lil iyaa bi bato bi tànjala jëm ak fu mun di jaar lil iyaa bi ngir dellu ay lil awdati xaailina bi muy wax na yónn si daan wax aaibuuna taaibuuna li rabbina xaamiduuna sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba waxdahu am na ñu ci yokk sax wa nasara jundahu mu ne ma wax li yonent daan wax bu tukkee ba ñibbisi te ku ne ci ñun boo ko mokkalee war nga ko wax boo tukkee ba ñibbisi wala sax boo génnee bay duggaat sa néeg ñi ngi dellu ñi ngi tuub jëm ci suñu borom ñi ngi koy gërëm yàlla lam digle woon def na ko yàlla dimbale na jaamam yàlla dàq na laxzaab yëpp moom kenn xam nga laxzaab nañ ñëwee woon Medina pour mokkal ko ñu gas xandax dàq leen yàlla rek a ko mën boo boo ñibbee boo tukkee bay ñibbisi wala boo génnee bay dugaat wax ko ndànk wala ci ko wàññiwul dara man di ci laa ne wa yowma alxamiisi daxwatan wasal na tuur tuur benn benn région la waaye fala tuuru Sinaa bi alquran di wax itam fa Moussa doon déyanteeg borom bi fala nekk waaye tuur mu ne ñu egg sa tuur xam nga talaata arba alxames soriwul noonu ca yoor yoor fastaqbalana tabibu wa saida wa daxalat sabinati médecins yi foofu dañuy contrôler ndax xujjaa yi indi nañ benn contamination wala dem ñun sax bañ fa jaaree aji ba ñu wàññeeku ba ñëwee noonu la ñu def nañ defoon bàyyi diggante bi diggante bi ñaar fukki at ak nangam dox na fa ba fa ba fa bàyyi jaay waaye ñu bañ fa jaaree mooy âge bi la ñun itam dañu kii ñu dem jox ñu ay douche yoo xam ne ci géej gi lañ ko branché ndoxu xorom ngay sangoo jox ñu ay ay ay ay kii ñu ko robe de de de bain yu yu yu am ñu kii foofu après ñu loolu ñoo bàyyi ñu dugg mi ñu dugg misran waaw bàyyi mu ñu ñëw yéeg ba wa baada saatin istaqbalatna sanabiku wa naqalatna jamian ila al quarantine gars yi ñëw jëluñ ci gaal yu ndaw yi ñu wàcc après ñu dem fi ñu tuddee fi ñu tuddee quarante quarantine quarantine afii ma ñu dugal ñu ci xammaam bi comme na ma waxee wa albasuna baadal xusi jalaabiba muabdalil xujjaaj wa ajlisuna nax saatin fi daarin nadifatin fusat fi karaas fiha karaasi muadda li dalik ku ne am nga foto ko baxaru malabisana bi buxurin indahum mu ne am na cuuraay lu ñu amee ñu cuuraay ñu ko maanaam da ñu pompé leen quoi désinfecté leen wa sarraxuna wa rajana ila safinati waaye ñun comme ñun demuñ misra dañ dellu ci suñ bato wa saarat bina wa baada tuluci chamsi wasal na Suisse wa qultu fii Tour waaw ba ñuy bi jant bi so rek maanaam canal Suisse Suisse bopp mu ne foofu laa doon waxee ne araani bi tuural yowma sirtu muqima afuuzu bi sirrin jaa fihi kalima maa ngi nii ci tuuru Sinaa tey man ci jamono jii maa ngi wàcc tuur afuuzu mbir moom dana ma texe am bi sirrin ci mbóot moo xam ne jaa amas naa dikkal fii kaliman Moussa mbóotal Moussa am naa ko fi bi baxri suwisin qad amur wa innani bi porte saidin qad ashumu nasima maa ngi romb canal suwi port said maa ngi foon ngelawu ndemeex walakinani mahma ujawisu tanjatan ara manzara alhaadi alibadi faxima mais nag su ma xasee romb tànja rek gisatuma dara lu may kii jubal jaam yi te am daraja lool moom rek laay gis fu ma xool mooy sidna cheikh fa dalika shamsun wa rijalu kawakibun kooku may junj mooy jant bi góor yàlla yi ci des mu ne ay bidiw lañ fa kayfa tara inda shuruqi nujum su jant bi looy gis tey bidiw bidiw yaa ngi fi may doolay gis fa dalika ruuxul kawni sirru muhammadin kooku may junj seydna cheikh mooy roxoo kawn bi mooy mbóotam muhammad alayhi salaatu ma axaara xakima mu julli ci yonent bi sulasa assaabia fi yowmi sulasa السابع من المحرم رأينا جبال طرابلس بمملكة إيطاليا وليلة الأربعاء حاذينا بلدة مرسيليا عاصمة فرنسا عاصمة من عواصم فرنسا وضحوة الأربعاء حاذينا بلاد تونس وز- و- وزرت هنالك السيد العلام العارف الرباني سيدي أبي العباس أبا العباس إبراهيم بن عبد القادر الرياحي ومن معه من التجانيين muy wax nag ñuy ramasser romb nañ foo xam ne tolloon nañoo booba Italie xam nga ñoo notoon Libye moo tax mu ne mamlikatu Italia yow guddi guddi àllarba ñu tolloog Marseille Marseille moo bind ne capitale française la maanaam une des capitales Euh, ca yooyu àllarba mu ne ñu tolloog réewu Tunis mu ne nag bañ tolloog Tunis rek ma teewlu ziyaare Seyd Ibrahim Rayaay Rayaahi Arif Rabbani boobu ak ña fa nekk ñëpp ci Tunis ci ay tijaan wa yowma alxamis mararna bi biladi Ispania lati fiha alxarbu alaana baynahum mu ne ñu romb Espagne bésu alxames bi nga xam ne ci guerre lañ nekk booba wa fi wa fi sahari laylat aljumaati mararna bi jabali taariq ca njël ñu romb jabal taariq wa inda shuruqi wasalna ila tanja ba jant bay penk rek ñu egg tanja wa nazalna an ilbaxirati dahwatan ca yoor ñu may ñu wàcc wa sirtu uwaddiu maa rufaqaa ilxujjaaj wa kulluhum yaqul la budda an tadhaba ila baladina ahlu marakish wa ahlu ribat wa gayruhum mu ne may tàggoog nag marocain yi nga xam ne gaal gee ñu boole woon man maa ngi wàcc wuti feneen foo jëm ñoom ñi ngi wàcc di ñibbi mu ne ñëpp nag naan moo tee nga ñëw ci ñun waxuñ ñëw visite yow fi yaa ngi war a dëkk ci ñun waaw foofu nag mu ne wa fi dalika aqul yaqulu li rukbanu kun fi diyaarina fa inna la awla an tuqima bi daarina fa qultu lahum axlastum alwudda ba innama li faasa lahibun la yuqaasu bi naarina bu dee gars yi ñu- gawar yëpp ak ma naan waaye waaw waaw waaye nekkal ci suñ kër yi waaye ñun ñoo gën a yàlla ci nga dëkk suñ kër yow waroon na Sénégal fii nga war a nekk mu ne fa qultu lahum ma ne leen axlastumul wudd sellal ngeen cofeel ngeen ma solo innama mbaaye nag li faasa lahibun faas dafa am jalam wuy vérvéri boo xam ne laa yuqaasu bi naari naa kenn du ko xeesu suñu safara nag am naa lu ma soxlaa loolu si yéen de وخلصنا ديوان حيث نظروا إلى وصية الدولة الفرنساوية التي أتحفونا بها سريعا من غير تكليف بأدنى شيء هم أمونا ريكومانداسيون بو جوغي غوفرنور جنرال تي داكار يرومو دواني خولو ني صاح ميم consul ba sax mu ne invité na leen ca samedi ja dal di tamponné seen passeport yi li ñu teree dem Fass ca saasa sax mooy dañu wax ne boo romboo garde yi ci yoon wi te amoo tampon yooyu dañ lay sonal moo taxoon ñu fanaan pour ñu tamponné leen wa nazala wa wa tabu la wa laylat al ahadi rakibna ila Fass wa nazalna biha sabihat al ahadi guddi continuer dem Fass وأقمنا في زاوية الشيخ بعد نزولنا في منزل دار الشريف في منزلنا دار الشريف سيدي حدو المتقدم ذكره سين دلال كربي وكون حدو بمبوك من نكون كولخ نكون كوميرسان فوف لين دلات وبعد العصر سرنا إلى مدينة صفر لملاقاة سيدي أحمد بن السايح ونزلنا عنده وأكرمنا وأتحفني بعصا الختم التجاني التي لا توجه لشيء بهمة الشيخ رضي الله عنه إلا ومساعدة تيسير الله تعالى ñu dem sufru soriwul faas ñun dem nañ fa ak Xaj Abdoulaye dem nañ fa ak Baay waaw ñu dem seeti waa jooju mu ne kooku nag teral na ko ganale na ko mais may na ko itam kaan yetu Cheikh Ahmad Tijaan yi nga xam ne loo ko jubale ci himmati Cheikh rek loola ommatu ci yombal ak yàlla ci la bindoon Baay bushraaya xustu lazi qad azza madrakuhu asal imaam amlikuhu bind na ci ay woy yu bari waa li ma bëggoon am naa ko ndax xiyatu seen cheikh bi jot naa ci mu ne wa wa aataana mashahid al xalifa ali harazim mashahid bu ali harazim mashahid lañ koy wax mu ne waaye jox na ko ci nusxa wa kannaasu seydi ahmad abdoulawi ahmad abdoulawi sëriñu sukayri kannaasam ba waaye jox na ko wa waadani bi nusxatin min jaamici al imam muhammad ibni mishri nee na mu dikkuy tamit dinaa la utal plus tard téere bi ñuy wax jaamiu libni mishri bu Cheikh Ahmad Tijaani jasawullahu ahsana jasaay jaamiul mishri ci suma yoonu Fass avant dernier ma itam am na ku ko indi yóbbu ma ba këram may ma ko ونزلنا بالمحطة لقصد ركوب الدار البيضاء ليلة الاثنين وركبنا في سفينة البر من فاس بعد صلاة العشاء وعند طلوع الشمس نزلنا بالدار البيضاء عند المقدم سيدي محمد الحسن بن علي الشمسي المقدم التيجاني بدار البيضاء وأكرم مسوانا وبعد الضحى صرنا إلى صاحب الباخرة وقطعنا أوراق الركوب إلى ذكاء وأعلمونا أن الباخرة المسماة بالكتبية بالكتيبة كتبية تخرج يوم الثلاثاء العاشر من المحرم وبتنا ليلة عاشوراء عند العلامة العارف الرباني سيدي أحمد بن الحاج عياشي سكريت موخ dem nañ Kaasa dem nañ suñu billet après nag ñu profité nag dem fanaani guddik ñu dem ci borom xam-xam bu bari ba lool al aarifu rabbaani Seydi Ahmad ibn Haaj al Ayaashi Sukari mu ne rakib naa ilayhi min daal bayda baada salaati asri takkusaan lañ fa jël oto ak wala saxaar dem Sataat Sataat la nekkoon si fi mu ne boo demee Casablanca bugg a dem Marrakech Sataat presque léegi sax mi ngi bokk ci ci région Casa. mu ne baada saatin benn waxtu rek lañ wasalna ilayha fi sayaara wa fariha bina wa akramana gaayatan mu ne Sukkari bëgg lool ci ñun teral ñu lool wa huwa alladi qaala hada luxsa fi naxwi mu ne moo defoon luxs bii zahiri de naxu la bàyyi daf ne cëpp rek fekk xamante liñ ci bindante lu yàgg mu ne bàyyi ma jam bii maa ko bindoon cax bii kafek moom ne ko soo ko tontuwul doo fi naan ataaya dam yoqi ba dañ ko xoon nag duñ naan ataaya ndax sukkeeriñ moo ne ayu fiilin ata bila failin xaqan wa qad taalama baxastu alayhi qallama yasuru alladi maarasa naxu alayhi wa lam yajid alayhi moo wax leen ma yéen njàngkat yi faayil ju amul faayil daan la te man gëstu naa ko lu yàgg te kat ku mën naxu rek ñaare boo ko gisee rek fekk ko fi faayil ju amul faayil mel nga ne xaalaat waxuñ ki wax darabat waxuñ ki dóor bàyyi daal di jël kayit gi rek golbis na ko mu ne fa qultu mujiban lahu taalama tamma bi suali jawaabun min labibin jiba sabiru ilay qallama shadda li labibi raxilun lam yanal ma danna albaxilu alay mu ne ko am kay tontu gi ki ko laaj moo ko indi ndaxte taalama xam nga am na taala xallama am na xall mel ni feelu maadi yi te amul faay yow li ngay laaj moom nga jëfandikoo xam dañ ko gisam déet wax nga ko baadama qultu lahu qitaatan fa ajaabani fekk avant loolu wax naa ko benn qitaa ci cheer mu tontu ma ci même baxru ak wasnu ak xaafiya dana ñëw wa sa taati qitaataani fi ma yaati min al ashaari insha allahu yem foofu salaamun ala almursalin walhamdulilahi rabbil alamin parce que nag affaire bi am na am dara su ma ko xamee tontu la i jàng ci kàggu mamalaaji kay di nga xam ne sharaaw Buxaari am na yooyu yëpp waaw am na yoo xam ne daf koy gis su fekkee ni waaw bu fekkee xam xam nga téere yi maanaam yu bëri yaa ngi koy fekk ci téere yi da nga xam ab téere te gisagoo ko da nga dem gis téere waaye yii yëpp foofu foofu la ko jëndee daal si mool amoon na Sénégal xam nga maam Alaaji ma wax la tuuti ci ci ci politique culturelle de itteem dafa yeggoon ci ci Dagana la am benn waaye bu mu amal accord ne ko bépp téere bu egg si Mauritanie te amuñ ko ñun bu fekkee ne lu ñuy jaay la laajal ma yónnee la njëg nga jëndal yónnee ma su fekkee nit ko am te nangu koo jaay fayal ko ko sotti ma yónnee la njëg nga indi ko loolu loolu maanaam liggéey nañ ci lu yàgg amoon na bindkat boo xam ne daanaka moo dàq mi machine waaw kooku bind la ma laaj yu bëri bëri bëri bëri léegi sax gis nañ lettre yu ko waaj wax naan yaa ngi dese nangam nangam ba fayaguñ ko woon yi demee noonu c'est un mouvement kay mais nag dama nag gis téere yi nag jënd ko jënd yeneen yoo xam ne amuñ ko bàyyi dafa continuer di jënd téere ba voyage am mujj ci Maroc jënd na fa téere boo xam ne ba mu ko jëndee yóbbal bi dafa jeex an qaawul maghrib bi doon wax ci xatmul wilaaya muhammadiya charab ba ci bindam la ko bàyyi ba mu ko bindee ba mu ko jëndee dafa cher ba nga xam ne xam nga dañuy profité rek ñu kii te at moomu bàyyi dafa demoon pour dem dërs pour joxe dërs durus xasaniya daaw ja dafa ñëwoon war a joxe dërs Xasan xaw a feebar at moom mu ñëw war a joxe des moom mu xaw a feebar bi ñu déparé Rabat ñëw Casa war a fanaan ci hôtel Dar el Bayda bi nekk léegi Hyatt Regency boobu non alors nag bàyyi na ma ana téere bi njëndoon ma indi fekk boobu ci géej yëpp def nañ ko ba kii waaw mu ne ma kii jàngal mu xaddima bi ma jàng mu cuqat cuqat jàng fi jàng fi jàng fi ba ah baax na baax na may toog ba xam lu muy wax ah kii kat saraam bi baax na kat waaye moom it jar naa sara ma ma xam ne jox la ko salaamaaleykum.
ñaar laaj yu mu dugal. benn bi si yow la. Baye radiyallahu anhu. yàlla def mayoon nga gis ko si minute mu nawar si jumaa yi ngeen teel moom sa ci kenn.
si diwen si biir jumaa yi. daay gi toog mbooloo bi ñu ko fu nga si xàmmee baabu lim naa si xàmmee ay aws la. Baye di wax baabu lim di ko teg si aws la. di teg la aws la. mu toog ne mu yàgg ab diir mu jóg dugg si xabaru yu tam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ab diir ñëw toog fi mu toogoon. ne dugg naa si yonent bi lu am ab diir ñu génn maanaam moom ñuy dox si àll bu verte ni mu teg ma loxo bu tedd ba radiyallahu anhu ñu dox tuuti rek ma gis ab liir jël ko bàyyi na ma lu tax nga jël ko ma ne ko dama dama ñëwante comme nit comme nit la ma ne ma naa ko jël ñoo ci ci àll bi nii.
waaw bàyyi na ma teg ko du nit jinne la si noonu rek yàlla def ñu ñu ñu génne ñu génne ñu carte Sénégal dina tak carte bi si carte Sénégal bi daf de écran yu si àll bi ma jël benn bant di ko wan bàyyi ma ne ko fii mooy ngij waaw mun naa ngij kay gënoon ma koo xam wallaay mun naa ngij gënoon ma koo xam confirmation.
ma ne ko gis nga xéew yi fi yàlla def yëpp si yow la ko jaarale mu ñëw si El Hadj Mor mu ne ma ma ne El Hadj Mor du ñaar kenn lañ radiyallahu anhu ñàkk ah loolu kay waaw.
daal moom gis naa ah boobu moom moom moom gis la li ma ma doon wax yëpp dëgg la kooku moo confirmé la ko ci benn gàmmu mu dem Màkka ba ñëw ba gàmmu ko jot ci xasidaam bi mu def ci gàmmu gi bi tolloog gàmmu gi ndax gàmmu gi taxutoon moom day tagg yonent rek mu mu wax ci ne wa fil xajji yowmal iidi bil xayfi min minan jihaaran ataani Mustafa bil manaaih mu ne ca aj gi ca minan ca xay fu mi nan ci lu dul nelaw yonent indil na ma may yi ba ma jàngee ba ñu ñëw ci buntu kër gi taxaw noonu ñoom cheikhaan yi ak monsieur ay kilifa naar taxaw mu ne ma jàngal leen xasida bi bàyyi gi taxaw ci buntu kër gi buntu kër gi ci mbaar mi xawal tiim leen noonu tuuti ma liir ko ba mu pare bàyyi na ne duuma waykat de waaye li ma wax yëpp dëgg la ma ne ko kon nag bàyyi ñaar am na kon waykat nga li nga wax
yow sa def def na tuuti bàyyi na ma jàng alxuraan ma ne ko jàng naa alxuraan mun ma foron jàng ma ne ko si tàll bi ñu wax alaaj karo ma ne ko baax na baax na baax si nuntu man ci mën a ko man bàyyi danaay faral di la addiyaale yaasin parce que yaasin dama ko bëgg sama xol dana ma koy faral di la ko addiyaale ma ne ko baax na jox ma ñetti salaatu fàtte
jox ma waaw bàyyi jox ma ma mu jox ma ñetti salaatu fàtte mu ne di nga nga di ko jàng wala mu jàngal la ko mu ne ma jox naa la ñetti salaatu fàtte ah bàkkañ waaw mun ko naa mën na remplacer Yacine ah bu Yacine xatee ngir ñàkk temps jàngal ñetti saa du fàtte macha allah benn bi benn benn si yow la waaw
daaw yàlla dafa def ma ñu ñu si si gis
ربنا عليك توكلنا يا كثير الصفات يا رسول نسألك السلامة يا الله نتجه إليك نسألك السلامة وشكل صدمة قهرمانك يا الله اللهم اغفر لسانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله
برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نام